الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين wajal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida anta alladi allamta luqmaana alxikam mustafa xayra shiyam mbokk yi ñu seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew ginnaaw bi ñu santee sunu borom tabaraka wa taala julli ci yonent bu tedd bi sayiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi ñaanal alxalifatul am cheikh muhammadul muntaqa ibnu cheikh muhammadul bashir ibnu xaadimul rasul yàlla na ko fi sunu borom bàyyi te wérul ko te mottali ay yéeneem ak i naalam yépp ci barke alquranu karim noonu la ñuy ñaanalee xalifa ba ca Tiwaawan sëriñ Babacar Si Mansour yàlla na ko fi yàlla bàyyi moom it te wéral ko mbooleem ak ay rakam yépp ak mbooleem kilifa diine yi ci réew mi yépp nag ak imaam yeeg borom xam-xam yeeg sëriñu daara yi ndax émission bi seen émission la mbokk yi di ñaanal ñi tëdd ci lalu hôpital yi yàlla na leen fa yàlla yëkkati waaye di ñaanal ñi nga xam ne itam caabi da leen ginnaaw yàlla leen fa yàlla génne dañ bañ a defaat lu leen fay delloo mbokk yi di ñaanal ñi nga xam ne itam ñi ngi ci biir réew mi ak ci bitim réew ak mbooleem ñi nga xam ne rek ñi ngi topp émission bi nga xam ne mooy émission booley alquran yi ak émission bi nga xam ne mooy yaru ak yare ngir am solo gum am solo suñu mbokk sëriñ Mbàkke Sourang di ko taxawee ak sëriñ Maxtaar Kebe di ay boroomi xam-xam mais di ci waxtaanee sujet actualité ñi ngi invité mbooleem réew mi ak mbooleem ñi nga xam ne ñi ngi topp suñu émission yi ñuy bàyyi xel émission yooyu ndax am na solo trop te képp kuy borom kër di yare responsabilité tegu sa kaw moo xam da ngaa yor njaboot moo xam da nekk chef d'entreprise moo xam da nekk sëriñu daara di jàngalekat ndax ñun ñëpp ay éducateur lañ kenn ku nekk émission boobu soxal na la ndax wax dëgg yàlla euh, ñëpp a ci jëriñu ngir euh, tomb yu am solo am njëriñ amal nit ñi njëriñ yu ñu fay waxtaanee sëriñ Makhtar Kebe di ci ànd ak sëriñ Mbacke Sourang kon laataa ñuy dugg seen suñu émission tey bii nag muy boole alxuraan yi dañuy jox sëriñ Makhtar Kebe mu nuyoo. sëriñ Maxtaar ñu ngi lay waxaat asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah sëñ Omar Silla maa ngi leen nuyu di la siyaare waaye di nuyu bokki jullit yeeg bokki taalibe yi ñuy déglu di ñu seetaan fu ñu mën a nekk tàmbalee nuyoo bi ci saaxibul fadila al cheikh Mouhamadul Muntaqa xafidahu llahu wa raah wa waffaqahu wa tawalla ak njabatuk sëriñ Tubaa gépp kilifay diine yi ci réew mi bàyyiwuñu ñenn ak kenn ak fenn di dellusiwaat fii ci C3S di nuyu alaaji sëriñ Seck ak sëriñ fàllu ak sëñ daamak ak ngi seqal liggéey bi ñëpp ci biir capital bi ak bitti yeneen banqaas yi ci des yëpp di ndokkeelaat di félicité bu baax suñ mbokk sëriñ Mbàkke Sorong mi nga xam ne li nga wax léegi ñu ngi génne ci benn émission yaru ak yare di nuyu sun technicien bu baax bi di sëñ Moustapha Sarr di ko seyaare bu baax waaye nag dellusiwaat ci ëttub daara fekk fi waa daara di nuyu ñett ka fay jàngale ñu ngi koy nuyu ka fay jàngit ñu ngi koy nuyu ka ko fa indi mu fay jàngit ñu ngi koy nuyu ki nga xam ne njàng ñor na ko waxtu nekk muy dox ak a wax ci luy tax njàng mën a amit ñu ngi koy nuyu di ko siyaare asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëriñ Makhtar Kébé moom Cheikh Saliou Mbacké di la ndokkeel itam ndax booba tey gisante wuñu mhm. gis nañ keroog màggal gi délégation bu am solo bi ngeen def ànd ak sëriñ Abdou Samad mhm. maa ngi ko dem ci Cheikh Alhaaji Malick Maodo mhm. am solo ga nga fa jàng sëñ Moro day nit ku baax te bëgg xam-xam yàlla na ko fi yàlla bàyyi moom it te wéral ko ak mboolem ay njabootam ak mboolem euh, waati waawoon yëpp nag di nuyu waa Cene ba ndax émission bi dañ koy topp sëñ Adama Seck di doomu Baye Talla Xaar di nuyu Serigne Aline Fall mm-hmm. ñooñu dañoo dëkk Kajoor bëgg alquran di ay sëriñu daara di ay borom yi xam mais boole yi da a saf lool xam ne lu ci génn dañaan ma envoyé ma ko ñoom it dañ koy tasaat ci barab yi nga xam ne fa war a jaar sëñ Maxtaar suñu laaj bu njëkk tey jëm ci boole alquran yi mooy taat tànk tànk ndaanaan taat tànk ndaanaan wan boole ci ñëw. taat tànk mooy ak taati daroo. ak taati daroo. ñu naan ko taa marbuuta. Mm-hmm. ñu ne taat tànk ndaanaan yett la. mudliman yunus madluman lisraai mudlimoona jaal jaal mooy yaasin bu ci nekk ak voola muy mm-hmm. taa marbuuta boobu xam ne taati daroo joo la mm-hmm. moo tànk ndaanaan ndax am na feneen foo xam ne muslimoona la fay wax ak musliman léegi nag ñu ne nag taatànk ndaanaan yet mazliman yunus mazluman lisra a jaal jaal mooy yaasin mooy yaasin macha allah jaal mooy yaasin <coughs> jërëjëf sëriñ maxtaar hmm. waaye mag ñi kenn du ñoom kon taat googu moom lañu tuddee taati daro waaw allahu akbar <laughs> baat bi moom maa ngi koy doog a dégg tey taati daro hmm, taatànk jërëjëf hmm, wéeroo nag mooy ban taat moom wéeroo taat bi ñuy taat bi ñu tuddee wéeroo wetteer la xanaa. wetteer mooy tomb yi. mooy tomb yi boobay wetteer. déedéet xattu. Mhm. wetteer. sura tol taagoow. taagoow marbuuta la mooy taa tànk ba tey. mooy taa tànk ba tey. waaw macha allah. Mhm. jërëjëf sëñ Maxtaar ci leeral mhm. ñaareelu laaj bi sëñ Maxtaar mooy bari fóore. bari fóoru naayoo fa fóoru mooy luñ ñoddi. mooy luñ ñoddi. luñ xëcc luñ xëcc. bari an jigéen mooy. yaasin nisaa. nisaa. bari oona yunus. albariati yaar la yépp nga kaw nii. bëri fooru naayo naayo mooy ñeent kaw ni mooy sootul kaw ni lam yakuni lazina kafaru jërëjëf sëriñ Maxtaar ci bëri fooru yooyu nga xam ne moo ci ñëw ci ay boole suñ ñetteelu laaj sëriñ Maxtaar mooy aasi doge riidu mhm. aasi doge riidu moom wan boole ci ñëw aasi doge riidu naayo mooy aasi la ba noppi mhm. daa dog te ak saat tege ca riidu mooy ak saat mhm. ñu ne daa dog te riidu boo ko ajee da nga daanu boo ko defee siin da nga daan ñu ne hansi daa dog te ak saat tege ca ñu ne hansi doge riidu naa eh, naayo macha allah aasifun min aasifin yépp nga yunus macha allah fii yow min aasifin birima muy ibrahima mhm. haasifatan ca lën bi hansi doge riidu naayo lan bi mooy lan bi yaay mooy lan bi yaay macha allah jërëjëf sëriñ maxtaar ci boole wu am solo woowu nga tënk ko muy hansi riidu hansi mhm. doge riidu mhm. ñetteelu suñu ñeenteelu laaj mooy yastamiu ilayka yastamihu ilayka yaar la lan xaama xitaal mhm. yastamihona ilayka bajjub yunus fee dafa nekk yastamihu ñaar yoon ñoo ne yastamihona ñu ne yastamihu ilayka yaar la mhm. lan xaam ak xitaal mhm. yastamihona ilayka bajjub yunus foofu dong la nekk yastamihona allahu akbar macha allah jërëjëf sëñ Maxtaar foofu rek nekk yastamihona jërëjëf sëriñ Maxtaar Kebe ci leeral yu am solo yooyu beneen laaj bi sëñ Maxtaar mooy daw daw yet lafta daw yat mhm. daw rahdi daw sumar dab ba jóob yunus lafta dab moo nekk yunus mhm. fecc def yépp nag lafta daw la mm. ñu ne daw daw yet mhm. daw na rahdi daw na sumar dab ba jóob yunus <laughs> masha allah lafta dat bihi wa asarun na la maanaam Maxtaar na ci la ah, daanaan allah jërëjëf sëriñ Makhtar Kebe ci volet wu am solo woowu beneen laaj bi mooy xawluhum léwru xawluhum léwru naayo ñeent la mhm. dalika qawluhum mhm. baraan laa yuxsin ka qawluhum mhm. yunus fa ajabun qawluhumu raadi falaa yuxsin ka qawluhum jaal jaal mooy yaasin baraan mooy baraat mooy baraatul jërëjëf bu nee baraan na baraat na bu nee baraam ma ibrahima macha allah kon ñu bàyyi xel ñaari boole yooyu muy baraam ak bara baraam ak baraan muy lu am solo jërëjëf sëriñ Maxtaar. Mhm. beneen laaj bi xam naa xorom na lool mooy man fii wa man fii. man fii man fii naayo. naayo mooy. man fi samaawaati. Mm. di ànd ak wa man fi lardi ñu ne mm. man fii wa man fii naayo. wa maa yattabiu yunus mm-hmm. wa shamsu xajji fa fasiqa namli fa saxiqa bu nekk man fi samaawaati man fi lardi la àndal. macha ci nekk man fi samaawaati man fi lardi la àndal. sëriñ Maxtaar mm-hmm. kooku mooy boole man fii wa man fii. Mm-hmm. beneen boole bi sëñ Maxtaar mooy xablu bañ min xablu yu ci bari dañuy ànd ak min ñu ne xablu bañ min yaar la xablu wa kunta yunus mhm. xablu fii ahlina tuur mhm. amuñ min xablu wa kunta mhm. yunus xablu fii ahlina tuur amuñu min est-ce que macha Maxtaar Kebe beneen laaj bi sëñ Maxtaar mooy kulla aayatin kulla aayatin yaar la lan am la laaraaf kullu aayatin bajjub yunus foofu la nekk kullu waaye bu dul moom kulla ngay dégg kulla kulla aayatin yaar mhm. lan aam ak la araaf mhm. kullu aayatin bajjub yunus sëñ Mustaar boole bi xanaa boole wu sew la de xanaa sew la ndax kulla ak kullu bu jàngul naxwu moom la day <laughs> yomb lool <laughs> ndax ñaare kulla fa ñaare nekk mafool <laughs> mhm. boole wu xaraf la wala boole wu loolu maska la. maska la kulla ak kullu. Mhm. shaklu la shaklu la. jërëjëf. yastamihuna kay. Uh-huh. mooy xaraf mooy xaraf uh-huh. <laughs> jërëjëf sëñ Maxtaar. Uh-huh. léeg-léeg am na solo. sëñ Maxtaar. allaha naayo. ma may la benn bonus. muy ban ci. tun jaraan yett la. qaryatu naamanat. yunusa. fitiyatu naamanu. njenge. njenge mooy. mooy mooy kafi. xaanitu naanaa alleyli zumar macha allah boole woo joxaat ko sëñ Mbacke Sourang partagé ko ak yow loolu bonus la boo xam ne sëñ Maxtaar moo ko may ñi seetaan bokkul woon ci laaj yi waaye fa tabaarakallah allah naayo mhm. ñeent wawa mhm. uma mhm. wa wa uma mooy ñeent mooy ñeent wa yushhidu llaha laan walakin abudullaha yunus ushhidu llaha hóot man yaabudullaha xajj du ko may rek ay jeex na est-ce que yi tabarakallah macha allah jërëjëf Cheikh Makhtar kebe ci leeral yu am solo yooyu jëm ci alquranul karim mbokk yi lii day wane ne euh, mag ñi euh, yàlla euh, defal na leen tawféex ci xam-xam ndax lii luñ lu luñ fi luñ fi bàyyi la sonnee ko ba bàyyi ko tey li ci yéeme mooy alquran la sëriñ Saaliw Mbàkke doon wax rek lii dafa bokk ci lu koy taaral mhm. moo tax lu ñu war a delloo lu ñu war a delloo si waat la mhm. li tax ñu war ko delloo si waat ñi ko ñi ko xam dañoo bariwul mhm. tey ñi ngi dem moo tax suñu maxtaar ñi ngi leen di ñaan ngal la ngeen bind lii ci ay téere bàyyi ko fi ndax turaas la incha allah lu mat a sàmm la tey ndono la mag ñi passé fa tax ñu bàyyi ko fi mujjee ko nag mu reet ci ñun ba génération yi ñëw duñ ko jëriñoo loolu moom erreur dëgg-dëgg moo tax ñi ngi leen di soññ yéen borom xam-xam yi temps la liggéey la waaye liggéeyal diine liggéeyal alquran la fexe leen bu def ko ci téere bàyyi ko incha allah ndax xam-xam bu jafe la xam-xam bu bu bu noobul la itam te am solo incha yàlla yàlla sàmm leen ndax yéen ñi ko fi desee eh, bëreetu leen waaye yàlla suñu borom teg leen loxo ba ngeen tasaare ko fu ngeen ko bëgg a tasaare incha allahu taala rahmanir rahim والقلم وما يسطرون